d'infrastructure et d'éducation et infrastructure de santé bi ab Ablaye Wade ñëwee dëgg la def na ay efforts yu bëri pour mettre à niveau maanaam fexe ba euh, daal mu amaat équité sociale boobu waaw loolu nag bari na ci ay jafe-jafe itam parce que gis nañu ne donte jéem na def lu mu lu mu mën euh, ba léegi mu ngi bari ay euh, ñu ngi koy woyati lay ay case yooyu nga xam ne moom la ñuy jàngale maanaam ay ay espèces su pukus yoo xam ne abri provisoire yooyu ñuy def noonu Euh, yoo xam ne fa la ñuy jàngale ton gis ngeen ne bari na ba léegi loo xam ne ay injustice sociale la euh, injustice sociale yoo xam ne itam gis nañ ko ci euh, dëkkuwaay yi nga xam ne sori nañu équipement sociaux de base yooyu ba tax xal yu bëri dinañ dem ba tollu CM2 am seen examen waaye bu ñu bëggee dem ci secondaire bi du ñu mun a dem ndax kilomètres yi ñuy wax a def pour dem jàngi dafay sori. mais mais mais bu leen dégg ngeen wax dafa mel ne Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne yéen da ngeen ko considéré dafa am ay ressources riche c'est-à-dire ñu war a mën a régler lépp mais da ngeen di fàttali ne Sénégal aussi si dëkk bi lañ nekk boo xam ne pauvre la aussi amuñu doole ji ngóor gi mënul matale lépp. est-ce que lu tax bu ngeen wax paramètre boobu du may gis ngeen koy jël di ko teg aussi. ngeen ngeen. waaw xëj na xëj waaw xëj na loolu. xaj na loolu ci suñu faiblesse xam nga nit nag matul euh, waaye dañ koy waxee ci suñu anam yoo xam ne xaj na du ñu mun a ëmb lépp émission yi souvent day xaw a gàtt ba tax duñu mun a dugg ci yenn détail waaye fii wàllu woowu mun na la ci indil tontu ndaw bu tuuti. xam nga euh, nit ki bu euh, bu amul moyen yu doy maanaam koppar gu doy daf ko war a mottali xam-xam bu doy te xam-xam bi am nañ ko. boroom xalaatkat yi boroom xam-xam yi am nañ am nañ leen ci réew mi waaye li problème bi am. mooy xam boroom xam-xam yi dafa am lu ñuy dafa am loo xam ne munuñ leen ciy dugal dugal munoo jël ay milliards dugal ko loo xam ne ay mbirum xaritoo lay doon bugg ci boole boroom xam-xam yi duñ ci bokk moo ñu ci bari nag dañuy jël ay nit ñoo xam ne seeni xarit lañuy lañuy doon seeni ñooñ lañuy doon ñu jox leen loo xam ne yeewuñ ko. borom xam-xam yi da nga see bëgg a génn pour politiciens yi. ah waaw mais euh, affaire politique lañ koy def ba tax. Euh, yore kopparu askan bi di ko pasar pasare ak doole xalaat nag ne parce que nit ki dafa ne entrepreneur la wala am na euh, daal benn agrément wala yu mel noonu rek war nañ ko mun a jox loolu gis nañ ko fii ci Covid bi gis nañ ko ci yeneen ak yeneen ñu ne kii am na agrément jaay ceeb fekk xamul dara ci ceeb euh, wala ñu jox ñenn ñi ay chantier yoo xam ne yellowuñ ko mun naa ci tu yenn yoo xam ne man mii j'étais chef d'entreprise maa ngi woon ci benn société de contrôle mm-hmm. mun na la wax ne am na ci ay chantier yoo xam ne dañ ko foqat ci si suñu loxo jox ko ñoo xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne ñun ñoo leen ëpp doole am na ci sax boo xam ne dañu mujjee dellu siwaat jox ko suñu entreprise parce que gis nañu ne ki ko bëggoon a forcer kooku mënuloon dem. est-ce que liggéey bi est-ce que liggéey yaa ngi ko def ni nga ko war a defee aussi. parce que damaa jàpp ne duñ jël dara rek foqati ko loxo te amuñ luñ teg euh, si table ji tam. waaw ah bon euh, loolu nag xam naa ne comme yooyu fekk amuloo loo ko wane. Euh, en direct doo doo ci mën a sori waaye li wër ba wër moo di xamante nañ ci suñu te li wër ba wër mooy alal bi alalu askan bi buñ ko dugaloon ci fiñ ko war a dugal ñiñ ko war a euh, liggéey foog naa ne dina bari loo xam ne dinañ ko mën a saafara ci ak ay moyen yu néew euh, ma jël exemple bi nga xam ne mooy exemple Singapour Singapour tey boo ko jàpp jëlee mu ngi bokk mooy ñetteelu réew bi ci àdduna bi nga xam ne moo euh, gën a baax gouvernance d'ailleurs boo xoolee rapport boobu ñu def euh, au niveau international ñu ne ñetti réew yi jiitu ci àdduna si ci wàllu gouvernance mooy Finlande mooy Suisse ak mooy euh, Singapour réew yooyu ñoo gën a baax bu gouvernance te comme seen économie mooy bokk nañ ci économie yi gën a baax jëlal Finlande ñeet juróomi million nit rek la ñu am waaye boo jëlee seen PIB maanaam seen kattan mat na téeméeri yoon kattanu Sénégal. loolu est-ce que waaw est-ce que normal parce que ñun. fukki fukki million ak juróom-ñaar lañ aussi ñoom fukki juróomi million. non ñooñu dañ ko liggéey dañ ko liggéey dañ ko liggéey te boo xoolee ci ñoom bari ci bari na ci ci ñoom ñoo xam ne seen ministre yeeg seen député yi dafa am ay euh, ay sart yoo xam ne dañ leen tënk ba tax lépp lu ñu liggéey hmm. dañuy dellu siwaat wax li ñu liggéey ak niñ ko liggéey te bu ñu ko liggéeyul liñ ko war a liggéey dañ koy dañ leen di fii dindi boo jëlee mbiru mbind mbënd bi tey bu doon ay tubaab ñoo fi ne dinañu saytu li xew ba lii am te ñi liggéeyul niñ ko war a liggéey dañ leen di fay jëlee gis ngeen ne tey Macky amul lenn lu mu wax lu jëmee ci loolu ndax li tax li tax loolu xaritam xaj na waaye nitam yi ñoo nekk euh, ci ministère bi yore wàll woowu mënu leen mënu leen juger en tout cas bugg leen juger bokk. bugg leen bugg leen bugg leen sanctionner. mais foofu itam dina dinay poser problème parce que man li ma seetlu mooy bu fekkee dañuy jël marché yi jox ko ñi nga xam ne ay étranger lañ yéen ñi nga xam ne si secteur privé bi ngeen nekk yëpp da ngeen di jóg wax ne marché yi joxuñu ko privé yi. alors bu ñu ko joxee privé yi Sénégal ngeen dañ ko jox seen i xarit loolu kañ lay sotti parce que loolu la ñu seetlu ah buñ ah, saa saa suñu joxee ab marché privé rek. ñu ne xam nga xam nga appel do appel d'offre euh, dafa tegu ci benn code ñu ngi koy woy le code de marché publics te yoon dafa laaj euh, boo nee yoon sax euh, mun nañu wax ne euh, c'est au niveau régional CEDEAO moo imposé mu am un une régulation maanaam une agence boo xam ne mooy saytu naka la fii di jaare ndax mbir yi jaar na yoon gis ngeen agence de régulation bi ki ko jiite yàgg na waroon nañ ko fay jële waroon na jël retraite mooy ñu ARMP ñu bàyyi ko fi lu tax ñuy bàyyi ci ci ci ci ci ci kuréel boo xam ne dafa war a saytu lépp luy jaar yoon normalement ñoom ci seen bopp ñoo war a njëkk am taxawaayu yoon taxawaay bu jub taxawaay boobu dama jàpp ne fekk yaa ngi tabb ki ko jiite ci anam yoo xam ne waroon ak yoon wax dëgg am nañ ci ñaaw njort euh, muy benn. bi ci des mooy code des marché publics bi dafa am ay porox ndoll yoo xam ne mun nga cee dugg am na ay porox ndoll yoo xam ne loi bi daf ko ciy bàyyi porox ndoll yooyu nag lañuy ñuy dugg ba tax mun nañu consulter ay entreprise yoo xam ne ci seen i xarit la ñu doon yenn saa yi sax tur yooyu euh, changé waaye bopp yi benn lay doon donc yooyu nekk na loo xam ne il faut que nit ñi bàyyi ci bàyyi ci xel ba tax. Euh, lu bari ñu ngi ko ciy gis waaye yenn yi doo ko mun a yuuxu parce que bu dee da nga war a loo gis rek nga yuuxu ko kon foog na ne bés bu ne ñu yuuxu. mais mais